Nous def tay Nous at bu dina am te commune te commune bokk toujours ñu jot fonds de ñu yi nous état viré mais sentir na nécessité bi ba financement jox ñu di donc ñu pour recevoir une valeur de 7 millions en médicaments pour les cinq postes de santé de Ngoundiane donc mu doon lu rëy si ñun parce que jamono bii ñu ñëw ku xam jamono bi ñu toll ak feebar yi si dëkk bi da nga dem hôpital yi day fees dell te dara gënul métti nga ñëw ñu faj la ne garab bi amu fi donc jamono bi su ñëwee ñu xool garab yu doy ñu indi ko te maire jëndalu ko boppam ñu ñëw ko jëndaltu ñu ñoo xool lu ñu soxla ne lii lañ soxla ñu dem indi ko teg ko kon kenn du wax garab yi répondre reposé wu sur des termes yu baax ñu ñoo def demande bi indi ko 7 millions yi

donc loolu yàgg na yàgg na ko def du doy nag lu ñu wax nag nit ki lu muy def du doy tuuti mais tam duñ tee di ñaax pour mu dolli ñu. àddala ci ñun ñu def chaque année bu ñu tolloo fii dajee ak ñi nga xamante ne ñooy professionnel u santé euh, yi nekk biir commune Ngoundiane jox leen li nga xamante ne dotation ak subvention yi ñu warloo ak ñoom waaye ñu def revue maanaam jàngat engagement yi nga xamante ne dañ ko jël xool lan lañ ci def lan lañ ci deful ak. déglu seen i mébét aussi pour yeneen orientation tey nag noonu lañ ko defee joxe nañu fii ay médicament yoo xam ne boo tënkee ñoom valeur bi mu ngi toll ci 7 millions li ko jiitu joxe woon nañu benn subvention boo xam ne moom lañ leen di jàppale ci lu ñuy fay seen ndox ak seen courant lu tolloog 5 millions ñëw nañ aussi ci suñu engagement yi nga xamante ne moom la ñu jëloon ci 2022 bi bokk na ci engagement yooyu Nous avons tabax benn logement à Khourwa, def nañ ko waroon tabax benen logement à Sew Xay aussi ñi ngi koy tabax euh, on me signale que les travaux sont à 90 de réalisation mais aussi euh, war nañu renouveler suñu parc euh, ambulance bi ñu tambalé ko ci poste de santé bu Diak bobu renouveler nañ ko ba paré amna benen bu en cours bobu inshallah d'ici la fin de l'année moy bu centre ce sera fait euh, am na aussi ci suñu projet budget ren 6 sixième poste de santé bu ñu wara tabax ci ben village bu tuddu Mbayeen Diak bobu aussi euh, les travaux vont démarrer courant mois de novembre Inshallah. euh, grosso modo dal li lañu def tay li ci dess ay remises symboliques la won ben bi ñu jagleel ko district santé euh, district sanitaire bu bu xombol bi nga xamantene ne Ngoundiane ci la bokk ñoom ay liguey yuñ fay def. Euh, commune bi jugé woon nécessaire ne war na participer ci liggéey yooyu ñu participer à hauteur de deux millions ci loolu leneen di si des euh, suñu doyen suñu mag nekkoon ICP chef de post bu ñaan centre di monsieur Camara euh, def lu rafet loo xamante ne war nañ ko jàngal génération yi topp si ginnaawam parce que yàlla dafa dogal mu liggéey ba àgg ci wala dem noppalu ji li ñuy wax retraite loolu jot mu wara am remplaçant remplaçant bi amagul mu tok di ñu gunge te période bi mu doon gunge nekkoon période bo xamante euh ku xam kuy politique euh, xamné période bobu euh, dafa xaw am ay sensibilité ñu ngi won doon élection mu comprendre contexte bobu yépp tok ak ñun pendant 9 mois muy jappelé askan bi di xaar son remplaçant may profito ci lima deful won léegi ci réunion bi di dalal son remplaçant monsieur Fall di koh wax dalal jamm ci Ngoundiane na topp euh, tànk monsieur Camara en tout cas ñu profité ci occasion bi rendre hommage Camara boobu euh, am une modique somme symbolique boo xamante ne teg nañ ko ci loxoom euh, tuddee ko motivation vraiment loolu mooy tënk li ñu def ci journée tey bi ñuy sant askan bi yëpp di gërëm ñëpp di remercier ñëpp au nom du maire Camara ñu koy ñaanal au nom du maire au nom du conseil municipal au nom toute la population de Ngoundiane fu mu jublu yàlla na fa yiwu yàlla jublu yàlla na ko yàlla defal wër yàlla yàlla gën a guddal fanam yàlla barkeel njabootam vraiment defal nañu loo xamante ne euh, mënuñu fay te sori si suñu xol yàlla rek lañ koy bàyyil